sant suñu borom subhanahu wa taala di seede ni moom rek mooy sunu buur moom rek mooy ki nu yaakaar tey ak ëllëg di seede ni Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy ndaw li mu yónni woon ci nun muy ndaw loo xam lépp lu mu waroon a jottali jottali na ko lu mu waroon digle ci lu baax digle na lu mu waroon tere ci safaan tere na gannaaw loolu mbokki jullit yi suñu borom subhanahu wa taala moo bind asamaan ak suuf bind mu war koo taxawe mu wax ak ñun ci alquran ni huwa alladi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha muy benn ndigal boo xam ni nu ñépp war nañ ci bàyyi xel mooy yàlla bi mu defaree suuf ba mu jàkk daf fi wàcce doomu aadama ngir doomu aadama dundal suuf wastaamarakum fiha gannaaw bi nga xamee ni waajal na doomu aadama ci xel waajal ko itam ci yónni ay yonent yoo xam ni ñooy ñëw di ko fàttali saa yu fàttee waaye mu waajal suuf ci def fi mboolem loo xam ni doomu aadama war na koo aajowoo ci kaw suuf mu ni nag doomu aadama yow laa teg responsabilité lii ma fi wàcce nga saytu ko aar ko bokk na ci ñaar yi nga xam ni mom lañ ñoxe won wa Makka ca li ilaafi Quraysh ca nji ca mujj ga mu ni leen falyacbudu rabb haada al bayt lutax alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ñaari mbir yo xamni nit mënu ko ñak ci kaw suuf moy الأمن النفسي والأمن الغذائي maanaam sécurité boo xam ni dafay aju ci wàllu nit ki ak jëmmam nan lañ koy aare ba mu am sécurité ci jëmmam waaye nan lañ koy aare ba mu am sécurité ci wàllu dundinam mooy sécurité alimentaire ñaar yooyu la ñoxe woon waa makka ni leen ki leen garantil ñaar yii am na lu ngeen ko war lool te mooy lan fal nañ ko jaamu e kon ñaari sécurité yooyu doom aadama mënu koo ñàkk ci kaw suuf ba tax waru garu la kenn ku nekk ci nun mu fexe ba garder sécurité boobu aar ko ba kenn du ko jala ku kenn du ko euh, safental waaye kenn du ko salfaañee yàlla mu ngi wax ak ñun ci alquran ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa na ngeen ragal fitna joo xam ne bu ñëwee du yem ci ñi ko sooke woon rek Walaf di wax ni ay du yam ci boppu boroom ay bu ñëwee kenn du xam fu muy yam man nga ko yow mi ko taal fan la safara wi yegg kon ay kenn du ko taal mu kon na ngeen ragal fitna joo xam ni bu ñëwee du yam ci ñi ko sooke woon rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni taawadu billahi min fitani ma dahara minha wa ma batan نجد مسلم في الله في فتنة ما خم فتنة بنبولا ما خم فتنة بو فنلا باقي جلدي بنا جانعته ناري تكسية بين آية القرآن بي أك حديث بي ينتبه عليه الصلاة والسلام وخ من ننتي جانعته أي مير مير مجاك بنتي جانعته ماي الأمن والاستقرار أصلٌ min usul al hayat basharia sécurité stabilité dafa bokk ci yi nga xam ni lu fondamental ci dund doomu aadama yi ci kaw suuf bu ko defee kon lu mën la ñàkk la ci seen dund gi e, kon day jaadu ci kenn ku nekk ci ñun mu jog taxaw di jëf ak a wax ci lo xamni day tax jàmm jooju ak dal gogu am ci société bi ñaarel ba darul fitan wa ikhmad nariha mas'uliyat jami' al muwatinin afradan wa hukuma xukuma gatando fitna ak fay safaram bu fekke ni mu ngi tak la jitu moy gatandu ko bala moo takk bu takkee nag nga góor-góorlu fay ko loolu responsabilité képp kuy dund ci société bi la moo xam moo xam ab personne civile nga moo xam état nga boo xam ni da nga war a garder sécurité ak bien nit ñi nga xam ni ñoo la fal ñetteel ba al ibtiaadu an asbaabi nashati al fitan sori lépp loo xam ni day waral fitna am nga sori ko ak lépp loo xam ni bépp facteur booy boo xam ni day tax fitna tasaaroo nga sori ko fexe ba mu bañ a jaare ci yow bu jaaree ci keneen itam nga fexe ba arrêté ko bu fekkee ni mën nga koo arrêté ñeenteel ba moy ñu jital ñu jital intérêt général ñu jital ko ci intérêt personnel ndax lu bari ci li indi fitna la ci ëpp moy jital sa intérêt personnel ta bañ jité jital intérêt général kon ñu fexé bay jital intérêt général ci suñu intérêt bop bo féké ni intérêt général dafa menacé wu nun ñëpp nu àndandoo fàtte suñu intérêt bopp ba intérêt général boobu ñu fexe ba sauvegarder ko fexe ba kenn du ko salfaañe euh, juróomeel ba dañu war a conscientiser ndaw ñi ak képp koo xam ne yaakaar nañ ni na mën naa jóge ci yow dañ laa war a conscientiser ci ni sa responsabilité la nga fexe ba installer climat de paix ci société bi nga xam ni ci ngay dund te bañ a nekk facteur boo xam ni dafay détruire li nga xam ni mooy jàmm ji nga xam ni moo am ci réew mi juróom-benneel ba eh, wujubul muhaafadati ala arwaax dañu war a sàmm ruux yi kenn waru ko foyee ruux dafa sacré ba kenn waru ko tóor kenn waru ko sànk ci ay caaxaan waaye boo seetloo da ngay gis di roo yi dafa mel ne roo yi doomu aadama yi comme roo yi ay mala la nga xam ni dañ koy foye ko jot mën a faagaagal ruux te la cay mujj dara du la ca fekk waxoon nañ ko ci xutba yi jàlloon wax ni ñàkk gi ñu ñàkk e, teg ñi nga xam ni ñooy def njombe yi ñàkk gi ñu leen ñàkk delloo ci yoon loolu mooy tax njombe yi di continuer di am waaye bu fekkoon ni ku ko def ñu def la ko bala ngay def danga xalaat téeméeri yoon eh, ba juróom-ñetteel ba mooy daruratu taamuli jamii afraadi almujtama eh, dimbalante boo xam ne dafa war a am ci mbooleem membre yi société bi ñu dimbalante ko ci dar lépp loo xam ni fitna la ñépp dimbalante ci kenn ku nekk ca fa nga toll fa sa doole toll fa sa masuliya fa sa responsabilité toll nga jëf ngir lépp luy fitna du am bu fekkee ni ñépp def nañ noonu kon fitna du jóge ci kenn di dem di tasaaroo ci biir société bi euh, juróom ñeenteel ba mooy responsabilité kilifay diine yi kilifa diine yi ak res kilifay ngóor gi ñoom ñëpp am nañu responsabilité ci kanamu société bi waaye ci kanamu seen boroom ëllëg yowmal qiyaam ndax itam ñu dénk la am réew walla am ay nit ñoo xam ni ñu ngi lay déglu te boo nee def leen ñu def boo nee bàyyi leen ñu bàyyi nga seetaan leen ba ñu def lu ñu warul woon a def da nga am responsabilité boo xam ne sa kanamu boroom subhanahu wa taala moo xam kilifa diine nga moo xam kilifa àddina nga kon kilifay diine yi nga xam ni bu ñu waxee am ñu leen déglu war nañoo wax waaye nguur gi nga xam ni itam eh, doole ji ak kàttan gi pouvoir bi ci seen loxo la nekk ñoom itam war nañoo tasarruf bi aqlaaniya maanaam war nañoo jëfe xel war nañoo fexe ba lépp loo xam ni luy sabab ay la fexe ba fanq ko ba du am ak nag nu ñu ko mën a fanqee ba ca mujj te mooy kasratu duaa wa taawud min al ma dahara minha wa ma batan mooy nun ñëpp nu àndandoo di ñaan àndandoo di ñaan ak di eh, faggu tàllal suñu loxo suñu borom subhanahu wa taala mu musal ñu ci fitna yi nga xam ni mu ngi yënd ci réew mi te buñ ko seetaane mu takk ndax itam ay manifestation yoo xam ni ay ruux mën na caa wadde responsabilité kenn ku nekk la ci biir réew mi mu jël ci responsabilité ba mu ca war a jël bu fekkee ni kiy def am na ñoo xam ni bu ñu ko nee bul def du def ñu wax ak moom ñi nga xam ni itam kiy def bu defee ñooy jàmmaarloo ak moom te am na ñoo xam ni mën nañ leen a diggal ñu jàmmaarloo ci façon jàmmaarloo boo xam ne ruux du ca waddee loola itam nañ ko jëfee moytu jëfandikoo doole moytu jëfandikoo ak kattan ak jëfandikoo ñàkk xellu ci mbooleem ñaari kuréel yépp nag kuréel bi nga xam ni moo nekk ci opposition bi ak bi nga xam ni moo nekk ci pouvoir bi ñoom ñépp la ñuy dénk ñu delloo si waat seen xel xam ni réew mii dañu ko don ci suñuy maam ñu don ko doxal ba mu yegsi ci suñuy loxo mujje pusa mu réer nag dara jaruko kon mbir bu fekkee ni dafa am ñu la ca jiitu woon yor ko di ko saytu ba ko ci sa loxo yow itam war am madu gu tol ne ak njub gu ne ak mat gu tol ne saytu ko ba teg ko ci loxo yi ñii sa gannaaw ndax mi du yamul ci nun am na ñuy ñëwaat sunu gannaaw di ko di ci dund war fee dund war fee def eh, war war war fee saxal li nga xam ni mooy li taxoon yàlla wàcceenu te mooy wastaamarakum fiha istimaar boobu du fi jóg ba ba addinay tukki kon nag bu fekkee ni ci sa loxo la nekk tey fexeel ba toxal ko ci yeneen loxo ci anam ga mu gën a rafete anam ga mu gën a jaadoo bala nga fiy jóge ndax responsabilité la boo xam ne ci sa kanam borom subhanahu wa taala danañu la ko laaj danañu ma laaj man mii lan laa jëf ci fexe ba ay wii du takk yow mi may déglu yow itam des na la laaj yawmal qiyaam lan nga def ci ban taxawaay nga am ci mbir mi ba mbir mi du am loo xam ni dañ naan accam ndax itam nag nyari ah, ñaari force yo xam ni kenn ku nekk nee na du dellu gannaaw ah bu ñu faaw am lu am kon nag fexe ba du ñu daje loolu responsabilité ñépp la kon yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla def ci noppi ñiy déglu te nga xam wax da war ñu deg wax ñi nga xam ni da war yàlla na yàlla def ci seen nu mu xel ñu tere li ñu war a tere ñi nga xam ni dañoo buñ leen teree dañoo war a bàyyi yàlla yàlla def ci seen xel buñ leen teree ñu bàyyi ndax itam kat réew mi bu takkee amul kenn ku ciy jariñu amul kenn koo xam ni yaa ciy jariñu ñëpp ci loro kon nun ñëpp nañu àndandoo ñaan suñu borom subhanahu wa taala ba jàmm am ci réew mi waaye kenn ku nekk na jëf luy tax jàmm am وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم منهج السلف ودعوة إليه ويتقو يون مغنو باحني بسلف الصالح أكووت سيسين يون أولو سنة والجماعة سلف الصالح تعال قرآن السنة تقول كوسوف كان نكون فهم نكرا نكتش تصلدا وسنة برام سبحانه وتعالى من القرآن أك سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أك ijmaahu sahaaba te woote jëme ci kër aduna bi xejul ci kër abadan woote jëme ci sant am ñu amul sant woote jëme ci réew munul giide ñëpp woote jëme ci xabiila maanaam aw xeet am na ñeneen ñu xamul na sax xeet boobu am na kon yooyu yëpp xat